salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum sëriñ yëpp nag sëriñ yëpp laa wax kat yi duul ci match yi yëpp bu bu jeexee ñaan leen yàlla Sénégal gagné bu ñu gañee yéen ñëpp lay xar seen lëfal ndey tout yéen ñëpp lay teppi seen data ndey waa Karamba moom xanaa daa jaawale kaa yi Karamba xanaa da ngaa jaawale kaa yi sama xarit bi wala yow bii ya jëndee waroon na liggéey dañ koo mujj liggéey jox ko waa Angleterre sëriñ yi jéemoon na jàpp zoru euh, euh, Angleterre yi moom la ñoom ñun suñuy zor lan mujj jàpp ñuy yolli yolli di pëtax pëtaxi di fubbalu ne yëkk mel ni ay nagu dëj kenn fubbalu ci kenn kenn lu salte ngeen di fubbal lii la tubaab naan l'expérience fait la différence bu ne fubbal Angleterre a tax yéen da ngeen di tëjëx tëjëxi ne yëkk mel ne nagu dëj ñu ne expérience leen di fubbal ak ñoom taj taj tëj bëm defoon naa vidéo fexeel ba buñ tojee suñ jot ndey na genn ñu manifesté wu ko ne taal sa oto wala dëkk bi naan maa dugal bii dama jaawale kan yi dugal ko ci camp wu Angleterre mais gën ji gis na bii bi ku nekk na manifesté wu sëriñ bu ci nekk dina xar seen data nday benn par benn envoyé leen ma vidéo vaar yëpp ma lekk seen lëfal nday A ba sedd ba match bi jeex incha allah dégg nga na ngeen wër yéen ñëpp ngeen sibele ngeen ne tag ngeen suñ lëfal nday ñun sëriñ yi kattaale suñ nday ñun ñi sénégalais yi dégg ngeen merci beaucoup.